Ouzin combat bu neex la combat njool la ndaama boo xoolee tey moo sut Brise de Mer mais Brise de Mer ndaama la mais du ndaama moo xamante ni moomul boppam daa moom boppam. combat bi mu mujjee bëre stade Iba Mar da koo ñàkkoon diggante ak Bulldozer moom Brise de Mer bu ñëwaatee di bëre xale bi nga xamante ne mooy Tmax te muy ndaanaan ci lamb day jar lamb ji laaj calcul waaye chaque fois mbër mi nga xamante ni mooy jiital pied droit day am possibilité bëre. te ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk boo xoolee tànk joor la jiital muy muy brise de mer muy muy muy Tmax te Tmax mbër la moo xamante ne day bëre tànk mbotkat la dafa mën a mbot macha allah mën a bëre bëre wet brise de mer fi mu toll nii xam naa ne li mu bëgg ci combat bi mooy xeex ak Tmax juumloo ko pour mun koo daan en tout cas lu mën a xew mooy ñoom ñaar ku nekk mu ngi def calculam di liir adversaire am ci bët di xool ñoom ñaar kan la ci mën a def erreur bu ci moroomam def rek adversaire bi mën na koo daan Ouzin euh, bu sa morom daan la moo tax ñoo ngay lewaatoo congo amagul dóoranteeguñ jàppanteeguñu Brise de Mer na léegi te max mépp na léegi waaye loxo yi laalanteeguñu ñoo ngay lewaatoo jege yantoo nanu Brise de Mer te max Brise de daa mel ni ku bëgg a dem waaye te max a ngi ne tekk di ko déglu Brise de Mer ñu koy lewaatoo ñu xoolante ci bët Diamax wàcc na ba tolloog Brise de Mer numéro 2 cokkaas na ko léegi arbitre baa ngi naan bëre le lewaatoo bi dafa xaw a yàgg Brise de Mer daa mel ni ku bëgg a dem cokkaas na léegi waaye dalul Brise de Mer Tmax Brise de Mer gën naa wàcc Tmax daf na de corps dellu si Mer Tmax combat spécial Tmax a ngi dem cokkaas na léegi mooy xeex ak moom door na ko daw na jël ko moom Tmax lu mu koy def oh abit na jël amul Deux su àndee ci digg géew bi te Max daw na ko dóor avertissement pour Brise de Mer baa ji xale yi bëri nañu léegi. Ousseyn bëri nañ ñoom ñaar mais tey Max bi muy jël Brise de Mer arbitre bi ngi gis nga fi mu ko yegg moo lay wan ni Brise de la dàtt na lool tey Max ko sut mais mun naa mbot te tey Max bu sóoraalewul cër bi mu war a sédd bu ko yeggee fu sori mun naa am mbetteel bu rëy ci moom. waaye gis nga fi mu toll nii laale nañ ku ci nekk ñam na sa morom boo ñëwee ku ci nekk teey lay def dal ndax góor moom ku koy ku koy yeb rek da ko koo ñamut boo ko ñamee rek di nga ko jox cër bi nga xamante ni moom la am ñoom ñaar fi mu toll nii ku ci nekk day liiraat combat bi Ousseyn. li naan mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk waaye Brise Mer mi ci jur gi la bokk de. ndaanaan la ci làmb. ñu ngay lewaatoo. la combat bi passé da koo da koo da koo ñàkk waaye gis nga erreur boobu la bëgg a ndax mu ngi bëgg a wane ne fois du moroomu Tmax yi la war a bëreel Tmax moom it macha allah boo xoolee cor place bi xool taay bi mu yor war naa mën a yegg ca kaw fi làmb fi ndaanaani di yegg ci làmb waaye combat xale nag damaa bëgg bu arbitre prime ngeen laale wane seen bopp xeex bëre que le meilleur gagne ndam li ñibbi wala ndam li toog rek loolu mooy làmb xale Ousseyn. dañoo war a jëflante ba amateur yi duñ doyoo ci ñoom. bëgg seen combat mais Tmax xaw gisoo ne turam fi mu yegg. Euh, palmarès bi jot na jot xaw na yéex tuuti ndax teem ak sa tur bi moo ëpp fuuf jëmm ji. waa loolu dafay am ci làmb. parce que des fois nga gis mbër moo xamante ni turam da koy jiitu si ci làmb teem ak tur bi da koo jiitu ci làmb. jiitu bi mu ko juuti moo tax koo ne teem ak mu ne la xam naa ko waaye bu dajeeg moom du ko xam loolu nag gëj a bëre moo koy def ndax mbër mu ndaw saa su ne da ngaa war di bëre saa su ne da ngaa war di génn askan wi di la xam say supporter ngay saafante ñoom mais mbëri léegi Ouzin d'habitude ku bëree ñaari combat daan da nga yaakaar yegg nga au sommet moo tax làmb ji ci bëree bëri da leen di dégg bu ñu la waxee kii mooy diw nga ni ah kon kii mooy diw boo xoolee Brise de Mer mi gëj na wàcc ci làmb depuis mu am defet ba léegi mu ngi lolu làqatu nekk biir caare géej ànd ak ay ay papaam ànd ak ay magam ànd ak ay frère ñoom ñëpp tey ñu ngemb ko moo tax combat bi du mën a yomb Ouzin ñoom ñaar. moo tax calcul bi bëri waaye loo ci mën a xam ba ko ci mooy xale dinañ xeex dinañ bëre. dinañ bëre Ousseyn dinañ xeex ndax bu doon man maay teem ak si nag damay xeex ak moom ndax moom moo njool moo ëpp relance day dox ci kaw brise de mer xeex ak moom bu xeexee brise day daw ñëw ci tànk yi mais nii mu koy liiree di ko may mën na ko bañ a arranger ci combat bi moom tey max mais xale yi bu ñu bëree est-ce que dinañ lii bi ndax dañ ci gis koo xamante day day day abi day sifflé mu xeex ak adversaire am xeex bi arrangé ko mu dóor ko touché ko ba noppi daw jàpp ko di ko téye waaw lool dafay am ci làmb erreur coaching la parce que coach yi boo jiitalee ay xale di leen di yóbbu ci làmb avant ngay ñëw stade du nii nga war a bëree faw nga liir adversaire am ba pare doo ko xam adversaire bi nan la war a mën a bëree nan la mën a bëree man balaa maa yëpp su ma doon coach di indi mbër dinaa xool ay faayam ak faiblesse am yëpp mais su ma ñëwee ba ci digg géew bu simmee ma xool état de forme bi mu yàpp mu am bu dee damay digal sama mbër xeex ma xeex loo ko bu dee dama koy digal bëre ma bëre mbër yàgg nañ koo yàpp ñu ñëw ba ci bi coach changé changer li nga xamante ni mooy mooy mooy combat bi moo tax chaque chaque fois ngay dégg ñu naan la làmb mbër day wor wor bi ci digg géew la bu arbitre prime rek di gis nga combat bi léegi dina gaaw ndax Brise de Mer daa bëgg a aspirer Tmax pour mu ñëw ci xeex bi mu daw jàppante ak moom bëre ndax Brise de Mer avantage am mooy bëre Tmax a ngi noonu gis nga ko ma ngay fay moom it. Tmax daa mel ni ku la dégg ndax moo ngi wut xeex bi. kii di Brise de Mer xam na ne moom xeex bi arrangé wu ko moo tax mu bëgg koo gëdd su ko gëddee daw jël ko li ma mën a wax Brise kii nga xam te ne mooy Tmax na ma sàmm ay tànkam ndax ponkal xajub ci yeel ndax Brise de Mer mi ma gis fu mu jàpp buntu feeñ baa ji. nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf Ousseyn boo gisee Tmax ni mu taxawee Brise de Mer ni mu taxawee mooy li mu bëgg mooy dóor Tmax su coup bu dal daw accompagner ko jël ko ci suuf daan ko Tmax nag bu doon maay moom damay taxaw xeex ak moom. woo ko ci xeex bañ a wóori ci xeex bi woo ko ci xeex ba mu wuyu si ma ci ba yaakaar làmb ji xeex laa indi ma daw jàpp ko bëreeg moom daan ko ndax mbër saa sune ne père Max Mbargane wax ko mbër bu ñu la séentoo fetal nga fit bu ñu la séentoo fit nga fital loolu mooy mbër waaye booy ñëw ci làmb ñëpp ne day xeex day xeex day xeex nga ñëw ba ci làmb ji xeex loolu échec la làmb saa suñ ne day xeex day xeex boo ñëwee ba ci digg bi da ngaa war a leneen wane ni mën naa leneen lu dul xeex mën naa bëre mais en tout cas lu mën a xew mooy combat bi bari na calcul trop ci ñaari mbëri diggante Tmax ak Brise. jege yaantoon nañu Tmax door na ko léegi laaw waaye dalul Brise mais loxo Tmax rek la bëgg mu jóg. Tmax bëggul xeex bi Ousseyn boo gisee ni muy bëree nga xam ne bëggul xeex bi buy door ku sax day mel ni kuy laaw mais Brise moom fi mu toll nii mu ngi toog tànk yi bëgg na rek Tmax jóg woyof mu mun ko accompagner yëkkati ko ndax mbër moom le fait que muy déplacé wu di attaqué adversaire am rek. am na possibilité mille chances pour perte combat ndax booy attaqué di xeex ki ngay ki ngay dox ci koom da ngay woyof ci koom bu dawee dajeeg yow booy naaw sox doo xam li lay yëkkati Ousseyn mu ngi noonu. booy dem da ngay woyof ba tax na xale yaa ngay direeku ku ci nekk yaa ngi suuf say tànk toog ci ba mu dëgër di xool sa adversaire Tmax Brise de Mer numéro 2 Tmax wàcc na tolloog moom door na ko léegi góor droite bu dal laawaat na ko. bàyyi la pataaka bi wala boog da koo bëgg a daanu abit ba àtte na arbitre bi sëlewaat na kii de Brise am na trois avertissement Tmax am na deux avertissement liwaatoo nañu demaat ci saako yi Brise de Mer koy accéléré parce que xam nañ avertissement yi bu continuer du ko arrangé Brise de Mer T-Max Brise dox ci kawam. li mu bëgg Ousseyn mooy ñoom ñaar ku nekk am trois avertissement combat bi kii gis nga lu waxoon jël na ko ñoom ñaar dinañ xeex lu ma waxoon dañuy xeex ñu lay xeex lii la waroon def lii la waroon def lamb ji jeexagul arbitre ji arbitre bi àtte na arbitre gis nga Ousseyn li ma la waxoon Tmax daa waroon xeex bu yàgg mais am na nu muy xeexee ci kaw Brise de Mer day woyof bu ko Brise de Mer jàppee combat bi mun naa yegg ci moom fu ko neexul te instant yi fi mu toll nii Tmax ni mu fas yéenee xeexee combat bi arrangé wu ko te baaxul ci moom. arbitre bi soufflé waat na gis nga ñoom ñaar a noonu fi mu toll ñoom ñaar ku ci nekk ñam na moroomam gis nga Brise de Mer fi mu toll nii moo gën a am confiance pour taxaw parce que mu ngi dégg supporter dégg nga supporter ya la ñuy wax baaxul baaxul bàyyil xale yi ñu bëre.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 Ousseyn li ma nga doon wax a ngi nii mbër des fois di nga jël coup boo xam ne mën naa yàq sa làmb mën naa yàq sa làmb